ci Guèye mais ki nga xam ne moo yor euh, kaddu ki nga xam ne mooy monsieur le maire Yves Lamine Ciss euh, suñu dikk tey tamit euh, mi ngi aju ci bassin bi bassin bi bu ñu waxee basson bu njëkk ba dañu gisoon bassin boo xam ne tamit feesoon del ak ndox ñu def ci jën loolu tamit ay waasak yooyu pour rek nit ñi am beneen su fu ñuy sukkandikoo ci li nga xam ne mooy koom-koomu dëkk bi ci noonu dem nañu ba doon sax am lu mat ay tonnes ci ci ay jën ñu ko doon teg ci marché bi ak ñeneen ñi daan ñëw fii sax di di siy jël buñ si soxlaa ci noonu ñu dem ba loolu amatul ndaxte taw bi dem na man dafa tawul sax maanaam tawul li fi taw mënuñu ko dañ koy tuddee taw rek naan maanaam bu tooyeetu rek ñu ne taw waaye ba mu xewee ñu gis ni euh, tey jar na nit ñi teg ñu bët ndaxte amatuñu ndox gistuñu te bassin bi boo xoolee fu mu toll nii dañ daan dafa dey dañ daan euh, nekk ci ginnaaw di di arrosé waaye tey fi mu ndox mi war a ne la nit ñi di di di béy tey tey ñoom sax faf dañuy gasaale ci biir ñu gis ay teen yu xaw a am ay cinq six mètres wala sax deux trois selon fi nga ko gasee ci biir bassin bi nga xëy na jël fa ndox boo gisee ñu ngi ci biir tamaate yi ngeen di gis nii teen yaa ngi foofu ci biir donc ci noonu euh, ñun li ñuy ñaax peut-être nit ñi donte sax ñoo ngi ñoo ngi bassin bi ñoo ngi yaakaar ci bassin ba tey ndaxte taw bu dellu saatee yaakaar nañu moom la fa nekkoon dana dellu si waaye nag euh, li nga xamante ni gis nañ ko te nemmee nañ ko nemme dañ ko nemmeeku muy ni forage yu bëri ñi ngi fii di di jàppale ñi nga xam ne waa Dakar ci ci ci ndox forage yooyu nag dañ bëgg lu mu néew néew na am benn boo xam ne sax mën nañ ko baaxee li nga xam ne mooy population bi te population bi mën na ci jëfandikoo ndaxte maraîchage nekk na activité boo xam ne tamit bañ ko tàmbalee ak waa ANIDA euh, fii nii dox na parce que vingt jeune lañ fa recruter ñu forme benn GIE te ci wàllu récolte maanaam bés bu ñuy góob dañuy gis ni nit ñi nekk sax ci village bi dañuy am problème pour ñu mët mën koo def dañuy dem di jël ay kaar di génn fii nga xam mooy commune bi pour au moins loolu ndax boo xoolee ci loo xamante ni ñaari fukki ndaw ñoo ko def boo ko gënee yaatal yaakaar nañ ni euh, mën nañ am lu lu weesu loolu. kon mooy loolu waxamaan yi nga xam ne ñoo ngi fi taxawal parce que gis li ñuy def ñooñ tamit bu buñ yaatalee fii nga xam ne moom mooy zone boobu. mooy ferme agricole yi danay tax ñu jëlaat yeneen waxambaane te liggéey bi gën a takku waxambaane yëpp bokk ci liggéey bi ndax bassin bi ba muy dox am jën ban njëriñ la amaloon Morolan. njëriñ li mooy dafa amoon benn comité de gestion comité boobu tamit dafa doon liggéey ak mairie parce que loo xamante ni mi ngi aju ci loxo commune bi rek mairie bi moom moo fa ne donc dañu daan liggéey ak mairie maanaam dañu daan ñëw di napp bu ñu jëlee teg ko ci marché ba donc amoon benn comité de gestion donc loolu noonu mi ngi aju ci liggéeyu mairie bi ba tey donc kon loolu bu ñu gisee am na déjà comité bi ñi siy lu sax doy na léegi boo gis tur loolu nekk na benn mébét boo xamante ni tamit ñoo ngi koy xalaat. ñaata millimètre euh, total bi la taw yi la. Eh, téeméer ak fukk juróom-ñeent mooy total boo xayma lii nga xam ne mooy mois de juillet août septembre te boo xoolee ay tokk-tokk la eh, lu néew sax daanaka ci li ñuy bën mën a gis ci ci lii nga xam ne mooy taw. taw bu amul tool yi ak dund bi. waaw moom kay bay ma ragal mooy ba gën a metti sax. ndool bi kay mi ngi fi. xiif gi ba ba xiif mën a yem sax koo xam ne moom da ngay yaakaar ci sa doom ji nekk ci biti. loolu ñu ci dëkkee tàllal loxo rek waaye nag bu doon loolu li may wax ni amoon na rek kon ñu ñu génn ci loolu. kon ñu bari si sàq yi lañ daan yaakaar te amul ren. waaw loolu la maanaam ci tool yi boo bayee góob daanaka ku ku béyul moom amoo looy moo tax te tamaate ji yaakaar naa moom moo doon boo xam ne nit moom lañ doon. muy euh, waaw même noor te ñun suñ suuf si nu mu mel ak nu mu baaxee ñi waa daa sax gis nañ ko. parce que daaw ba ñu waxee ni on avait dañuy battoon record des récoltes par rapport à le par rapport au haricot vert boobu c'était ba ñu demee récolter parce que suuf si dañ naan béy au mois de septembre octobre nga def sa tamaata arrosé deux à trois jours dooto arrosé te mën naa dem ba ay mois de mai juin te benn da ngay arrosé ñaari fan ñetti fan nga bay donc suuf soosu kuñ ñu jox ndox yaakaar naa li ñu soxla am nañ ko. tey jii moo fas yéene nekk taxawu état pour jàppale euh, état bi daal man bassin bi xam nga comme ñoo ngi xalaat am yaakaar ni ni ki baykat ni dana taw ñu génn njëkk ne dragué lii nga xam ne moom mooy bassin bi ñu gé wàññi ban bi nekk ci biir ñu xaaral taw bu ñëwee nag fekk fa li nga xamante ne moom mooy suñu mbébét su boobaa la ñu defoon bu njëkk bu ñu defaat ko dañ ci defoon jën yooyu noonu moom mu dem ba développé kon bu demee ba mu ñëwaat rek ñu defaat la woon ndax ñu am li ñu yaakaar ci li nga xam ne moom mooy bassin bi. jërëjëf